jabaram sax da ngay guux tuuti nga dem toog ba noppalu nga soog a naan bu baax mais waroo lekk rek naan yenn naan yi baaxul dinañ si dellusiwaat si kanam li nga xam ne aussi mooy sel minéraux warul manqué parce que calcium tey jii bu manqué waxoon naa ko léegi dafay indi li ñu naan rachitisme wala décalcification donc ala kulaanin li ñu naan ay yàpp ak ñoom seen nen ak yooyu meew baax na si doomu aadama bi iode aussi warul manqué parce que bu manqué dina indi li ñu naan goitre te kooku lekk feebar xam jafe naa faj trop docteur yi jéem nañ faju olof bi jéem nañ waaye xaw na jafe faj donc nit ñi war nañ góorgóorlu que produit de la mer yu mel ni ay sel iodé yooyu ay géej ak yéet yooyu ñu koy faral di lekk parce que am na solo trop. ñu moytu aussi xale yu góor yi sax laay waxal fii maanaam lii di chewing-gum parce que chewing-gum bari na nit ñi lu ñu koy jëfandikoo te baaxul ndax chlorophylle bi si ne si biir moo tax chewing-gum baaxul. dafay wàññi instinct sexuel maanaam dina dem ba nit ki buy sëy du amati benn sensible du yëg dara donc chewing-gum alaa kulli nit na ko war a moytu. ah ñu moytu aussi bon bu ñu jógee si loolu mën a ma jël nag ñaar si lekk yooyu muy lii ñu naan lingom ak li ñu naan lem wax seen njariñ ah ndaxte limon dafa am njariñ trop mook lem lem moom def naa bu ma juumul yàlla tudd na ko si alxuraan sax si suratul naml ah wax na ne am na solo trop parce que nee na lem bari na lu muy saafara tey jii bu fekkee da nga gaañu maanaam nga am góom wala nga blessé yu mel noonu da ngay jël ndox da ngay jël limon nga def si tuuti ndox kooku li naan antiseptique la doon moo tax microbe bu mu fekk si gaañu gaañoo da koy dindi nga sotti ko si gaañu gaañoo bi wut lem def si takk kooku alaa ku leen boo ko defee si góom fa lay yem. ah li ñu naan cancer aussi nee na feebar wax nit ñi am na ñu naan sax maladie incurable maanaam kenn mënu koo faj mais gis nañ ni limon da koy saafara limon da koy faj. ah li tax mu koy faj mooy limon dafa nekk loo xam te ni cellule anormale yooyu nga xam dafay proliférer dafay màgg si suñu yaram limon daf koy arrêté donc limon lu am solo la. ah dina tax aussi maanaam suñu yaram dëgër ba nga xam ne dina mën a opposé wu si tumeur yooyu nga xam ne mën na feeñ suñu biir yaram donc limon ala kulli dafay faj cancer. ah soo jëlee li ñu naan les calculs rénaux calculs rénaux muy loo xam ne dafay laal li ñu naan roño li olof naan roño mu nekk si maanaam fii yor li wa fii waa nit ki war di tuure ndox ak yooyu donc loolu daf koy sàmm daf koy fajit ñi am problème mu calculs rénaux maanaam limon daf leen faj mais ni mu lay faje mooy nii bis bu njëkk bi. da ngay jël benn bis ba juróom-ñaari bis bis bu ne da ngay yokk boo bis bu njëkk bi da ngay jël benn kudd limon ñaareelu bis nga jël ñaari kudd ba si juróom-ñaareelu bis nga jël juróom-ñaari kudd juróom-ñetteelu bis da ngay wàññi da ngay demaat si juróom benn kudd boo ko continué ba si fukki fan yeeg ñett da ngay àggaat si benn kudd nga yokkaat encore fukki fan ak ñeent nga yokkaat benn kudd boo egsi si ñaar fukki fan ak benn da ngay àggaat si juróom-ñaari kudd nga wàññiwaat encore boo egsi si ñaar fukki fan ak juróom-ñaar maanaam da ngay egsiwaat si benn kudd loolu boo ko defee mooy li nga xam ne dafay saafara li ñu naan les calculs rénaux lii di cirrhose aussi waxoon naa fi keroog ni même microbe bi ngay lekk dafay indi tolof tolof si sa foie parce que dinay indi góom si res wi ak maanaam cellules yi dégénéré woog yooyu di yàqu pour res woowu donc li koy fajit maanaam limon bokk na si muy li ñaan cirrhose loolu da ngay jël ñeenti doomi limon nga paccal ko na jël xott yi bàyyi si biir ndox mi di ko naan ba muy lu bu néew néew juróom-benn semaine muy ñaari lu jigéen ñaari weer kooku dinay faj cirrhose bu dee décalcification la maanaam koo xamante ni maanaam dinay faral di dal mag ñi seen i yax dafay xaw a nooy ak yu mel noonu ndax calcium bi si newoon dafay wàññeeku kooku ni ñuy def mooy dañuy jël lu toll ni butéel boo xam ne walaat lay def ñu def si limon ñaari kudd limon bu ko defee nga jël nen toj ko jël xottu nen bi dugal si biir bàyyi ko nag au frais maanaam boo amee frigidaire nga def ko fa ba muy ñaari waxtu nga yëngal ko ba nga xam ne yëngatu na nga dolli si genn waa litre ndox bàyyi ko lu mat une heure de temps su ko defee nga suukare ko lem di ko naan maanaam bis bu ne nga jël si kudd di diggu kaas boo xëyee jël diggu kaas bu bëccëgee nga jël diggu kaas bu ngoonee nga jël diggu kaas kooku fu mu fekk maanaam ku am problème boobu dina ko saafara muy décalcification li ñu naan diabète aussi waxoon naa ko fii defoon naa sax émission si luy saafara diabète mais damay waxaat nit aussi limon lu am solal si luy faj diabète ni ngay def nag mooy ñeent ba juróom-ñetti kudd limon moom ngay jël bis bu nekk da nga koy def nag lu néew néew lu mat weer kooku dina saafara diabète ndaxte limon dafay dindi maanaam taux suukar boobu nga xam dafay nekk si yaram limon dina ko dindi mais nag damay wax diabétique yooyu ñu moytu li ñu naan les aliments yi nga xam dafa am les hydrocarbonés maanaam yu mel ni ay sunguf ak yooyu ceeb mburu ak yooyu ak suukar nañ koy xaw a moytu aussi te nag ñu privilégier yenn légumes yi yu mel ni salade carotte supame orange pamplemousse laaj ak soble yooyu nit ki ki nga xam dafa am diabète war na koy jël xam naa ne laaj ak soble moom dinaa si dellusiwaat sax parce que laaj li muy faj si ay feebar maanaam mënu ma ko def si wax si émission bi mais dinaa si dellusiwaat si beneen jëmi jamono bu soobee yàlla li ñu naan anémie aussi maanaam sa taux calcium bu wàññi ko maanaam da ngay jël lii di lem dana ko faj maanaam da ngay jël ñaari kudd lem saa yoo xëyee mais da nga koy jël nag toog waxtu soog a ndékki suba teel bi kooku dinay doo xam te dafa néew doole wala deretam dafa wàññi ko dina ko saafara su fekkee it feebaru sëy la maanaam yu mel ni ay sobis ak yooyu maanaam lii di poftan dana ko faj da ngay jël juróomi xobu poftan nga def ko si litre ndox bàyyi ko diir jël ñaari kuddu lem def si naan kooku maanaam dinay saafara feebar boobu ku xamante ni dafa sonn aussi li ñaan fatiguement général wala mu xaw a néew doole aussi maanaam lem am na si solo puisque ñetti kuddu lem ngay jël bis bu ne kooku am na solo pour saafara loolu bu dee problème mu tension aussi wax nañ ni lem maanaam dafay régulariser tension muy bu yéeg bala bu wàcc bi daf koy delloo si mu normal ulcère lem dina ko faj ku manqué nelaw it jëlal ñaari kuddu lem bala ngay tëdd dina ko faj lii di anginite maanaam lem buñ booleeg limon dina ko faj problème mu xol aussi maanaam lem bu ànd ak limon waaye da ngay tàngal ndox nag def ko si kooku dina ko saafara ah bala ñoo jeexal ñu ñëw si ay recommandation yoo xamante ni maanaam ñu ngi ko jële woon si livre Serigne Souhaïbou Mbacké ñu koy wax xuraatul xay ni ah dafa am ay dénkaane yu mu dénkaane woon si wàllu lekk ba léegi puisque ni Serigne Souhaïbou wax na si téeréem boobu ni nit ki bul lekk te fekk li nga lekkoon reesul bala ngaa lekk lekk gu bees fexeel ba li nga lekkoon rees kooku Serigne Souhaïbou wax na ko wax na it nit ki bul xiif trop na nga bàyyi ba xiif trop sof di lekk na nee na aussi bu fekkee da ngay joteeg sa soxna maanaam bul di xiif trop di ko def bul di suur bu di regg ba mu ëppit nga koy def wax na it aussi ndox mu sedd bul jóge si lool rek naan ndox mu sedd maanaam wax na it bu fekkee ndox mu sedd la nañ koy moytu di ko naan guddi ah sëñ Souhaïbou aussi wax na si livre am boobu ba léegi ni maanaam saa yu nit ki bëggee tuur ndox bu mu ko waaj na dem tuur ndox ndaxte bëgg a saw di ko téye dinay indi ay jàngoro say feebar yu bëri si doomu aadama bi ah wax na it ni bu fekkee garab dafa meññ sim at fruit ya sa mujj muy doom ya sa mujj bu ko nit dañ koy moytoo lekk maanaam mën nga witt garab waaye bu desee meññeef bu mujj bi da nga ko fa bàyyi bu ko di lekk kooku dénkaane na ko ah wax na it bul wann maanaam bul wann te fekk sax xamiwoo ba mokk kooku dinay indi liñ naan constipation maanaam biir seer ak yooyu ah wax na it ni waxoon naa ko sànq mu ni bu ñu boolee soow ak nen wala soow ak jën wala nen ak jën yooyu dafa nekk maanaam yoo xam ne waruñu koo boole si lekk ah kooku wax na ko si livre am boobu tënk na ko ah wax na aussi moom laa waxoon sànq ni bul lekk te fekk xiifuloo te saa yoo suuree na nga arrêté saa yoo añee ba noppi na nga noppalu tuuti boo mënee nelaw lu mu bu néew néew génn wàll waxtu na nga ko def saa yoo reeree it na nga def bu doon ñeent fukki jéego it nga dox ko ñëwaat toog soo ko tëdd baax na saa yooyu tëdd guddi gi it na ngay tëdde njaaxaanaay wala wet parce que loolu aussi dinay gaawal digestion maanaam lekk googu nga lekk dina tax muy gaaw a rees nañu moytu it lii di sàngara te it maanaam sëy ñuy seeg suñu soxna nañ koy soreel daanaka xam naan moo ko waxee xaw a ak gudd fan maanaam na nga koy jéem a saxoo ah bala maa jeexalit dinaa ñëw si maanaam liñ naan parce que aussi waxoon ngeen keroog si thème bu am solo muy wàllu salté ah te xam nga liñ naan nu ñuy récupérer déchet maanaam muy salté muy ordure yi mbalit moom war nañ ko mën a récupérer warul nekk si dëkk bi di ko yàq muy maanaam ay culture mu mbay mu des la wala lujum yu des wala lu mën a doon loo xam dafa des muy salté yooyu nañ ko dajale boo ko dajalee mën nañ si def li ñu naan compost compost bi noo koy defaree maanaam da ngay jël loolu boo ko dajalee nga dindi li si imperméable wala butéel nga teg fële li si des nga gas kàmb boo gasee kàmb nga dugal ko si boo ko si dugalee bis bu ne nga jaar fa yëngal ko di ko def ba muy ñaari weer gis nga loolu noonu daanaka engrais lay doon tool boo ko def dina mën a pallier jaratu bi baax na mais saa yu ëppee dafay indi tolof tol si garab gi gi sax muy meññeef gi or que engrais bii ma leen wax nii muy compost bi saa yoo ko defee sa tool garab gi dafay jël lam soxla la sa def mu bàyyi ko fa mais du wàññi dara garab gi donc ala kulli alin donc loolu et loolu dafay permettre ñu setal dëkk bi parce que mbalit moomu doon fàttal utiliser nañ ko léegi def ko si tool yi te bu tool bi ñoree nit ki daf koy lekkaat muy ab cycle boo xamante ni maanaam luy jóge si nit ki la dem si suuf jógewaat suuf si garab gi jël ko nit ki jël garab gi lekkaat ko maanaam cycle la loolu tax Lavoisier daana wax ni sigma m égale sigma de m prime maanaam rien ne se crée rien ne se perd tout se transforme maanaam amul lépp lenn loo xamante ni maanaam dañ koy ñàkk wala loo gis rek dafay transformé mu nekkaat leneen mais alaa kulli amul luy yàqu daal maanaam su ma ko mënee ni ma koy misaale si olof ah bala maa jeexali danaa wax si wàllu reen yi parce que léegi waxoon naa si wàllu limon ak kii mais dinaa wax ni reen aussi lu am solo la si wàllu faj waaye nit ñi ne nañ si def ndànk parce que reen du ku jub joxe reen nañ si def attention comme dañuy wax si wàllu set ak wér il faut mu wax si parce que lii may jël exemple rek si reen bi ñu naan reenu senjeng parce que reenu senjeng am na solo trop mais nit ki il faut mu xam ni reenu senjeng bu ëppee si doomu aadama mën na indi tolof tolof muy feebar bi ñu naan prostate surtout bu dee si góor dafay indi prostate parce que umpalewu leen ni seen njëñ dinañ koy jox koo xamante ni dafay